remercier bu baax bu baax a baax parce que yaakaar naa ne parce que ni ngeen di def nii yaakaar naa ne ñu moo tax mu parce que ñoom ni ma ko parce que je crois que deful ma leen dara du ngeen may te man gëmuma kenn Serigne Touba te yaakaar naa ne képp ku may wax sànq sama man la man looy mën def rek defal ko Serigne Touba te xool ma dajale ay nit pour nekk dara wala bu doon nax ba maag parce que depuis ñu toog fii depuis vingt deux heures ñi ngi ñëw toog ay nit la yoo xam ne dañoo sa coobare ko ñëw wowuma kenn wóoruma wóor ay nit naan waa feer fees noonu je pense parce que loolu tricherie nit doo tricher kii nit sax tricher bu am ci barab fii gis naa jeune boo xamante ne ñun bu ñu def barab ñoo ko defal ñun ñoo ko defal français te moo gën a rëy laa nit doo tricher doo aar du tricher Abdou nag amul solo amul am solo mu yëngu doomu aadama te mooy li may defar ay doomu aadama daf mu ko pour daf ma koy def pour ngeen sant ma pour ngeen gërëm ma de déedéet dama si jàmm suñu borom loolu dafa foor dafa am beneen grand bi naan Cheikh Ndiaye pour su ma waxee moom xam nga lan may woowee médecin la may woowee docteur la may woowee c'est parce que sama turandoo la sëriñ may amal yaakaar naa ne suñu bokkoon ne yeneen sëriñ yi am nañu étage comme tout le monde kenn du ko def ba ñaan ba ñaan la ñaata yaa ngi leen di leen saxal leen man foofu laa bokk mais nag am loo xam ne ñëpp ñoo ko bokk muy màgg te am loo xam ne dama la pour jeunes yëpp la jeunesse nañu bàyyi ñu rek ñu ne sëriñ may mën a faj ni ma bëggee dëkk bi yëpp gën a bëgg dëkk bi ku jullee li ma si daj doon ko dajee sëriñ Tuubaa xam laaj laaj bi leneen loolu dama bëgg ku nekk def na lu nekk si tey bopp benn bi mooy que ne ak moom moo doon si àdduna rek nañ foog suñu waajur waajur bi day foog wax leen ne li ngeen def li ngeen yaakaar ak moom lu lu rëy parce que nit ñi ngi toog kër xam naa lii xale yi def man maa ko te dafa mën a dara man nag li may wax amuma yoruma ne ki ma am yor ko mooy sëñ moom laa yaakaar fii yaakaar ko beneen bu may lancé appel di ko wax mbooloo lu ñu des nag moom mooy ñun ñu lancé un défi fexe ba mbàgg di mbir mi fi mu nekk jëm ci kanam instant bii nag uddi na la communauté chrétienne bi nekk ci Mbàkke nga xam ne ñun ak ñoom benn la soo demee seen kër ay ay sëriñ Saliou ay ku nekk dafay fekk. kon ñun ak ñoom diine ci rek moo xaw a mais ñu ne ñoom benn am na loo xam ne jël xaal politicien jël xaal sàmm bi nit ñi bu ñu boole seen doole ne dama leen ci sant bu baax a baax di sant bu baax ñu gën a Allemagne je crois que ne am talent la koy dégg ci rajo bi muy wax am respect am grâce mais maa ngi masoo bu baax a baax di ko wax ne loolu ma doon def noonu la ko doon def yàlla jël na naan ci yoo xam ne ko kenn kii yàlla jox dëkk bi muy gàllankoor aussi moom li may wax rek bilan moo lay falaat monsieur le wax moom moo lay falaat te dañoo toll ci jamono jooju mais nag dëkk bi dafa nekk jàpp nekk solo xam nga mu avancé. bu ko nekk ku nekk li nga war boo ko defee rek je crois que mën nañu avancer ku nekk day xaar semaine may rek yaakaar naa ne dañu avancer loolu lu ma koy wax ñu ëllëg seen ko ñu commencé defar seen ko ñu benn par benn su ngeen boole seen doole rek je crois que dinañ mën a résoudre beneen yi xale yi dañ fay dem di su nga tuddee ko am ay xale yu man seet si ñu bàyyi saal bee ànd ak paa ne ci dëkk a bay suñu lan dëgg bi laa woo galam ñu woo monsieur de l'intérieur mu laaj ñu fan la xale yi def loolu fan lañ nekk mu ci gaar bi lañ nekk lu ci ëpp mais dañoo romb gaar bërki dem la leen rey Tuubaa benn xale ak jànq ci biir këram lañ ko mu yëngal fa mu yëngal tëddee ko ba pare ren ngeen dëkk moom am na am na sécurité ku la ko wax day tax boppam parce que dina am dëkk bi am na sécurité ñoom ñu ngi en sécurité parce que dañ leen a gaare mais ñun ñii kenn ko ci nekk en sécurité pour suñu borom rek mu mën a sutural amul léegi nag la sécurité c' est l' affaire de tout le monde affaire police affaire gendarmerie affaire kër Massamba c' est l' affaire de tout le monde lu mu tax ma ko amee il faut que ngeen dénoncé nit ñi nga xam dañuy def ay ñaaw nekk ci dëkk suñ ko defee rek je crois que dinañ mën a résoudre beaucoup de problèmes fii ci dëkk mais beneen mooy que jël sa responsabilité jël sa engagement la jeunesse ñu jub leer na ñu ñoo koy fay suñu bopp ko fay li ñu war a dénoncer dañu doon dénoncer ko parce que suñu rakk ñoo fi ne suñu jigéen ñoo fi ne te heure bi ñuy dem marché wala heure bi ñuy xëy bu fekk ne ñu ñu si bëri ñu ngi nelaw wala ñu nekk ci kon je crois que ne loolu laa amoon suñu wax yeneen na ay kàddu sant la dafay bañ a lim di juum mais maa ngi gërëm bu baax a baax ñi nga xam àndoon naa fii ñoom ñëw fi ma leen jaajëfal depuis que ma yor conseil communal ba léegi fu gën leen gis gis leen ko gis leen ko ay sa bi ñu ne ko woo rek mu ngi gën doon jaajële ñu c' est juste que bëgguma def dara dañu ko et je crois que sant nag bu baax a baax sama sën bi soxna Bintu et je crois que ne guddi na trop kon ne xaw ko ci fekk aussi di remercier yi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo ànd ak ñun ñu wër fii Mamour Diaw